ginnaaw bu nu sante suñ boroom subhanahu wa taala julli ci yonantam bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu santa seexna alxadim alayhi akbaru ridwanullahi albaaxil xadim bu baax seex muhammadul muntaxa suñ boroom yàggal ko fi lool balim yéene liggéey lislaam ak njabootug lislaam mu àggale ko fu kawe njortam incha allahu taala ñu dellusiwaat ak yéen ci sunu émission zaadu nisaa il muslimaati li nasihati l muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne jataayu fàttalante la waaye jataayu laayanti biir mu mel ni jataay yi passé noo ngi woon ci ahamiyatu salaat digg-diggi solos julli ni nga xamee ne noonu la shariatul islam fonki julli lool ba teg ko sax fu jiggi xel nga xam ne indi woon nañ ci ay misaal ci li ñuy tuddee salaatul marid ki nga xam ne dafa tawat lu tawat ji métti métti ak nu nu man mel julli du ko wàcc xam ne jublu jubluñu ci indi àtte bi ndax boo ko ndax kon mën na gën a yaatu waaye dañ ci jublu rekk indi ni nga xamee ne noonu la lislaam ittiwu julli nga xam ne mën nañ wax sax ne ngantul julli mënta nekk nit ki julli daf koy war ba keroog muy dem di taqalikoo ak ruuxam indi woon ci misaal ci salaatul maridi ki nga xam ne dafa tawat lu tawat ji metti metti du tax julli wàcc ko indi nañ ci salaatul xaw ki nga xam ne dafa nekk ci fitna lu fitna ca métti métti métti du tax julli wàcc ko indi ci salaatul istixlaaf ki nga xam ne dafa nekk ci mbooloo di julli ba yàgg moo xam imam la wala maamum la amee ngànt du tax julli ga wàcc ko indi wun ci salaatu safar julleeg tukki ki nga xam ne dafa nekk ci aw yoon nekk ci tukki donte tukki wa lu mu wala lu yàgg-yàgg du tax julli wàcc ko indi woon ci aljamaa bayna salaatayni diggante boole ñaari julli ki nga xam ne dafa nekk ci jafeñ-jafeñ moo xam xiin la wala taw la wala ngelaw la wala am ngiru du tax ñu euh, wàcceel ku julli tegil ku julli indi woon nan salaatul fawaiti xodaul fawaiti muy fay julli nga xam ne moo la faat importance bu bu julli am importance day tax julli bu la faatee noo man def rek danga ko fay julli faat la ci waxtu bu mënta ñàkk ndax doomu aadama noonu la ko suñ boom bindee waaye nag bu la faatee rek noo man noo jullee man toll rek na xam ne fay ko daf laa war waaye du ne jullee bari na wala xamu lim ba ba tax na nga bañ ko julli déedéet yooyu yëpp nag liñ ciy jàngale mooy mooy itte goo xam ne sariya jox na ko julli itte woo ko nga xam ne li nga xam ne moom lañuy faral di tudde ngantul julli léeg-léeg nekkul ngànt rawat na ci lenn ci suñu bokki soxna yi te it ñi leen ciy dimbali nekk xañ na seeni kilifa ñu boo xam ne war nañoo man ci ñoom dara te xañ na ñu ànd ak ñoom ci jëf jooje ndax alquran ba mu waxee ne eh, xu anfusakum wa ahlikum naaran la ca teg na ngeen fegal seen bopp sawara ak seenu njaboot fegal sa bopp nag mooy du du caagin ne góorgóorlu ci lépp loo xam ne lépp loo xam ne euh, farata la ci yow nga góorgóorlu ca dem ca ba fa ca mën a yem waaye nag sàggane sa njaboot déedéet ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku ci nekk euh, nit ki ak doomam wala nit ak soxnaam wala nit ak rakkam képp koo xam ne am nga ci yow am nga ci moom kàddu jubbanti ko digal ko wala nga tere ko rek kooku mën ngaa nekk sàmm ci moom kon ki nga xam ne dafa nekk ak soxnaam wala mu nekk ak doomam la ko war mooy mu góorgóorlu ca la suñu borom subhanahu wa taala digal ko waaye mu soññ ca njaboot ga moo xam soxna sala wala doom yo waaye bu ci seetaane rek ëllëg yowmal xiyam day ànd ak ñoom ca mbugal ma kon loolu mooy euh, qu anfusakum wa ahlikum naar li ñuy wax lépp nag mu nekk loo xam ne lu jafe la xañ ne jihaad ak sa bakkan digg digg digg bañ a faale kenn ku dul suñ borom subhanahu wa la rek moo la ci mën a génne waaye bu lu bu dul lool rek bu dul lool rek daanaka xawee su cee mën a mucc euh, ku dëddu digg digg digg faaliwut kenn koo xam ne lu dul li suñ borom digle ko wa la moo la ci mën a musal ndax misaal ko ci jamono ji nga xam ne ci lan toll su amoon koo xam ne jigéen la joo xam ne dafa war dugg ci njëgub sëyam wala ñu koy may borom kër comme nin ko miine léegi nga xam ne dugal nañ ci yu bare bare bare bare bare eh, yu bare bare bare bare jigéen ji nga xam ne dafa nekkoon ci ciital tey masalan mu xëy wara dem ci li ñuy tuddee defarukaay ak yu ko nuru war am lu mu ci boppam am lu mu def ci ay bëtam am lu mu def ci ay loxoom ak i ak yu ko nuru waaye nag mu lànk bañ koo defee ñu wax ko mu ne déedéet ndax su ma ko defee su ma amee lenn lu teg sama bopp wala ci samay bët wala samay we day tax bu waxtu julli jotee doo mën a julli kon mbokk yi kooku kooku xalaat leen fan koy xool leen fan koy fan koy xalaatal koy xalaatal mooy kii dafa wérut dafa wérut te Sëriñ Tuubaa noon na wa man tajarrada li taatil jalil xabla taallum fa xumrun la nabil Sëriñ Tuubaa ne kooku mooy ki yewu dëgg dëgg dëgg ki nga xam ne dañ koy jëncal ci lu neexut suñu borom mu lànk bañ ca dugg kooku mooy ki yewu dëgg dëgg waaye ña ko cay mooy xumrun la nabil dof bu yewwul dof bu yewwul kooku nga gis ne buñ ko waxoon lool tey lami lan koy lan koy jëkk bàkke mooy dafa yewwul wala dafa dof te yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne dana dem ba jëmmi jamono boo bëggee sàmmonte ak sa diine dana métti ci yow mel ne ku nëb xëlu sawara jamono jooju ci lan toll li nga xam ne bëgg na sàmmonte ak bëgg naa sàmmonte ak lislaam day sonn lool ci léeg-léeg sax nag ay waajuram ñi ko gën a jege ñoom ñoo ko ciy gën a sonal ci wàllu àddina ngir jàpp ne boo ko ci wàllu àddina ba mel ni say moroom mel yow ki gën a tardé waaye nag fekk na demewul noonu naka noonu góor ñi tam xoolal ki nga xam ne dafa suñu roon dafa dogalan mu am xew indi soxnaam wala mu war a am ngénte soxna sa xañ na xëy war a dem defaru ji mu wax ne du génn kër gi du am lenn looy def ci boppam wala muy def ko ci bëtam wala ci ay weyam loo xam ne dana ko gàllankoor wëlif joxe waxtu suñu mbom bi waxtu wa jotee kooko xool fan koy dëkkal lépp lépp lu lépp luy kàddu gu ñaaw dana ko digg lépp luy kàddu gu ñaaw dana ko digg waaye nag fekk na booba wala mu wax xañ na loolu mooy li neex suñu borom waaye nag jamono moo toll foofu ba tax na la la ci mën a génn nekk lu jafe lool mooy bañ xool wala nga bañ a diglu waxi kenn ku dul waxi sama ak donte jafe na lool sax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu waxoon ne laa taa'ata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliq li àddina bépp bëgg soo ko defee ñu wëlbatiku di la ca gërëm di la ca kañ di la ca bàkk te mu nekk luy mel luy bi ne jëru ko waaye li nga xam ne danga koy def àddina bépp wëlbatiku di la ca di la ca ŋàññi te mu nekk lu suñu boroom gërëm na loole mooy li ko jar yi lu benn jullit muy topp benn mbindeef ci lu suñu boroom gërëmul la te li maxluqin fi maasiyati al xaaliq waaye mbokk yi ñi nga xam ne dañoo wax ne topp si nag ndaw rek mooy li gën ci ñoom mooy li nu bëgg te topp sag ndaw dañuy wax ne ku foye sag ndaw sag mag la fa kullu man baadara waxte si xari ilal hudas taraxa waxtel kibar yi Sëriñ Tuubaa ne képp koo xam ne danga toll ci waxtu ndaw bunti fo bunti caaxaan bunti yëpp wëlbatiku la nga won ko ginnaaw jublu su borom subhanahu wa taala nee na doo perte mukk doo perte mukk ëllëg boo doonee mag danga xam ne la nga doon topp suñu borom subhanahu wa ko gis boroom laxdar yi waxoon na ne inna allazina daat acmaaruhum bi xayri taatillahi fa yaa ashratahum wa yatula bukaihim yowma alxiyaama ma an nadaama ki nga xam ne dafa jàpp ne àddina moom ndaw mënta ñàkk jaar ci fo kon fokk mu fo jamonoom ba toll ci mag rek door a ci boroom ndax kooku xam na dana nekk mag am ndax ndaw day dem mak day dem almawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu za sawaqilil muhtarima saay bu dikkee rek fekk la nga nekkoon ci ay mébét bu déwénee bu weeru dayee bu bi sàngamee mu jël sa mébét ya yóbbu la ak donte mébét yu baax la wala safaanoog mébét yu baax kon ndaw li nga xam ne dafa ne dafa toll ci jamono nga xam ndaw lu jigéen la wala ndaw lu góor la waaye mu jàpp ndax fokk rek mu fo jamonoom bu fow jamonoom rek jamono jëpp daf ko perte kooku mooy ki digg digg ki nga xam ne moo perte ak dundam toujours ñu jël misaal ci soxna jaaratula nga xam ne mooy wajuru ku tedd ki euh, soxna jaara man nga ne boo ko doon xiyaas ci jamono ji ñu toll wala sax ci jamono jooja moom ndaw la woon ba nim fi jóge ndax li gën a siiw ci li mu dund mooy fanweeri at ak ñett fanweeri at ak ñett ki ko am ci jamono ji ñu toll day jàppe boppam ndaw lool nga xam ne sax du jubloogun ci wàllu jaamu yàlla bu dee julli julli moom daanaka euh, mën na ne du ko ittewoo sàmm aw yaramam lenn ci njaboot ki sax lenn ci kilifay sax bu ndaw lu jigéen tollee foofu di muur aw yaramam léeg-léega am ci ñoom ñu koy gaafal te walantanaa li diina xataa tasturi gis mikiyaa say ndabu bi taxa muri loolu la Sëriñ Tuubaa waxoon ca saadatu tullaab kon mbokki euh, addina moom këru kërug jaaruwaay la kërug romb la nag kër la gu am solo itam léeg-léeg ñu wax ne àddina amul solo léeg-léeg itam ñu wax ne àddina am na solo waaye ah kay àdduna amul solo ci ki nga xam ne dafa jàpp ne àddina moom lépp rek ay bànneex la dundam gépp moo jeexal ko ci ci am po ak caaxaan ak lu neex suñu borom daat amaruhum bi xayri taatillah sànq lépp ak dundam ci fo kooku moom àddina amul solo waaye ki nga xam ne dafa jàpp ne dafa xam ne àddina moom suñu borom daf ko fi indi ngir mu jaamu ko ma xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun mu teg ci kanamam jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak donte àddina mënta ñàkk ndax wabtaghi fima ataka allah daaral axira wala a nasibaka min ad-dunya li nga war a jël ci àddina jël ko ci àddina la nga war a jël ci àllaaxira nga jël ko ci àllaaxira jël sa àllaaxira teg ko ci sa ndeyjoor mu gën laa itteel nga jël sa àddina teg ko sa càmmoñ nga di ko jox ay ndesit moo kooku mooy ki nga xam ne mooy ki yewu digg digg digg digg digg yewu waaye boo jàppee ne rek boo ittewoo jaamu suñ boroom euh, ngay jaamu suñ boroom ci guddi ya ak ci bëccëg ya suba ya ak ngoon ya muy taw wala muy naaj muy sedd ak muy tàng lépp rek day dafay daf lay jox ak deltu ginnaaw mbokk yi loolu lu ëpp lu ëpp lu ëpp fas la rawat na sunu bokki soxna yi nga xam ne xañ na dunu dañ di ko wax ndax jataay bi ñoom lañ ko dippee waaye itam ak góor yàlla itam ndax zaadu nisaa il muslimina zaadu zaadu nisaa il muslimaati wa zaadu nisaa il muminina wal muminaat lan wax julit bu góor bi ak julit bu jigéen bi nga xam ne ñenn ci ñoom dañoo ittewoo alal àddina lool nga xam ne mën nañoo jóg ci njël lool jublu ci li loo xam ne àddina la leen di may te duñu jóg ci njël jublu ci seen borom subhanahu wa taala ci xam ne xañ na am na itteey àddina mën naa jóg ci njël wala ca fajar jublu ca waaye koo xam ne amu ko bu jógee ci njël wala ca fajar julli rek lay def julli ka moom mën na ko yeexe ba bët set te loolu wax na léegi ci jotaay yi passé bokk na ci bàkkaar yi gën mooy yeexe waxtu julli ci lu amul ngant ba waxtu wa jeex te ki nga xam ne suñ may na ko mën a jóg ci waxtu woowu waxtu njël woowu waxoon nañ ko ci jotaay yi passé waxtu njël woo waxtu la woo ab jaam gën a mën a jege boroomam ci dékk ko ay loxoom waaye dékk ko xolam ci e, ñaan ko waaye jaamu ko ci ni nga xam ne noonu la indi woon ci jotaay yi passé ku ñuy wax Seydina Seexuna Junaydi ak Ibnu Xaasim ci taxawaay yoo xam ne daanañ ko am ci taxawaay ko ci njël ak la leen la leen fa jural kon mbokk yi jotaay yooyu lu jar la waxtu yooyu lu lu jar di bàyyi xel la rawat na ñi nga xam ne suñu bopp may ne ñu mën caa jóg eh, rawat na suñu bokki jigéen ñi ndax waxu nañ ci ginnaaw léegi solo si nga xam ne moo nekk ci julli ca waxtu wa nga xam ne Sëriñ Tuubaa wax na ne bokk na ci topp yàlla yi gën a yi gën a yi a yi gën a baax mooy julli ca waxtu wa waalam bi anna afdala taati salaatuna fi awwalil awqaati ni nga xamee ne yeexantal julli ba waxtu wa génn bàkkaar bi ci nekk teel a julli ca waxtu wa yiw wa ko ëpp moo ci nekk kon ñi nga xamee ne bu nu jógee ci njël wala ci fajar danañ ittawoo leneen loo xam ne moom ca leen jëm wala julli suñ borom tanoo fàtte suñ borom mi leen jox ak wér jox leen ak man jox leen kàttan ku nu mën a jógee ca waxtu woowa am na ñu mu ko xañ ñoo xam ne bu leen ko suñ borom joxoon ñu jàmm ci suñu borom tabaaraka wa taala ndax la tastain ni'matillahi ala isyaanihi izaka kufrun xat jala suñ boom jox la xéewal gu màgg gu toll ni ak wér nga mën a jóg ci waxtu la neex waaye nga jóg ca waxtu lànk bañ a julli waxtu suñ boom ji soobu ci say itte ba doo julli waxtu wa ah suñ tubaa nee na kufrun xat jala ak wedd la goo xam ne gu mat sëkk la ndax ki suñ boom xéewal ngay dimbali ko xéwale ci ak mooy suñu borom ndax mooy gi mënta passé waxtu julli jot nga ko nekk sa itte ah, moom ah, kufun xat jala kon mbokk yi sunu jotaay zaadu nisaa il muslimaati zaadu nisaa il muslimina wal muslimaati insha allahu taala foofu lañ ci taxawlu ba beneen jamono buñ dikkee continuer jéem soom suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ففي مساياه لا يرتاب طيار وعوى المتم ضوي الإسلام يوم عدا ميم بي كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدت فجار